mais yow si tu veux être kii alors que on ne sait rien. de de de ça donc des je vais, idées je vais, on en a eu. voilà je vais, vous avez raison ma ñëw ci ma ñëw ci déjà sur mon parcours. pour dire que je suis ingénieur qui est diplômé de la haute école spécialisée de Suisse occidentale à Fribourg. donc je suis ingénieur polytechnicien aussi en génie civil euh, je viens de poly génn polytechnique Thiès dem euh, jàngi en Suisse dellu si et ça fait 15 ans maa ngi fii j'ai fait j'ai dirigé les travaux de l'hôtel Terrou-Bi période annoncée siège Sonatel bi nekk ci VDN bi man maa ko piloté donc euh, j'étais sonatelien j'ai fait 10 ans Sonatel Sonatel mettre en place benn modèle euh, boo xam ni SMH la tudd je sorti de ça c'est-à-dire ñu dooleel la nga créer entreprise pour mën a dimbale ay gone donc je suis chef d'entreprise depuis 2014 j'ai créé une entreprise qui s'appelle Koné Consulting boo xam ni day liggéey dans le dans dans le dans le bâtiment j'ai fait beaucoup de projets yoo xam j'ai formé et j'ai employé des des centaines de jeunes mm-hmm. notamment à Thiès et à Dakar et partout dans le Sénégal actuellement j'ai une entreprise qui fonctionne qui recrute des gosses et qui forme les jeunes aussi dans la construction et en plus de ça nous avons mis en place un complexe à Keur Massar cadre dans le cadre de ACCESS les acteurs du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal complexe boobu day former ay ndaw ci wàllu pâtisserie ci wàllu boulangerie restauration yeneen. ok comprendre nga ba pare gone yooyu ils viennent par dizaines par groupe de dizaines et ça fait plus de an qu'on fait ça ku nekk soo ñëwee groupe bu ñëw suñ la former on te donne ay jumtukaay pour nga mën a dem liggéey li nga xam ne mooy sa bopp. Donc c'est des choses qu'on a fait, qui sont là. On travaille avec les groupements de femmes. On a formé des centaines de groupements de femmes à travers le pays. Pour ton information. Qui information formation, <laughs> saponification, euh, transformation. de produits locaux, tout ça. Parce que nous, nous le développement, il faut qu'on l'impulse à la base. Et tout ça, nous avons nous dans l'État. Et nous comme nous, comme nous. Mais on s'inscrit dans, le, dans la citoyenneté toujours pour dire que c'est par l'exemple. que nañu mën a développer réew mi ku nekk jàpp si tey aujourd'hui on devrait mettre en place le si euh, le civisme dans la dans la fiscalité mais aujourd'hui les gens ils vont ku mel na yow dina ni man tey sama impôt bi may fay hmm, gis nañu train de vie état bi gis nañu nu della délapider xaalis bi gis nañu les fonds politiques comment ils font comprendre nga mais aujourd'hui tout ça il faudrait que ñu inculquer civisme ak pour egg ci niveau boobu cest dire pour amener les gens à payer correctement l'impôt et puis aussi ñi nga xam ne ñoom ci secteur informel bi waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom pour xool les mécanismes yi ñu mën a teg en place parce que le Bénin l'a réussi Euh, au passage parce que aussi actuellement je suis en train de euh, de piloter l'Assemblée nationale du Bénin il y avait un problème dafa bloqué ma pour dem débloquer ko chantier la pour nga dem ñu jël lépp nga def. on m'a coopté pour que je puisse euh, régler le problème. d'accord euh, c'est-à-dire il y avait des problèmes au niveau de, du pilotage parce que je suis consultant international je fais du pilotage aussi de projets euh, de bâtiments. d'accord donc il y avait des problèmes de de, de, de pilotage je suis allé j'ai résolu ça et le chantier a repris et maintenant le gros œuvre est terminé. puisqu'on parle euh, de sa sa ak mhm. peut-être li nga bëgg def ci réew mi lan nga xalaat ci ndaw yi nga xamante ni fi nii amuñu liggéey des centaines de jeunes yu nga xamante ni ñu ngi dem ci géej gi di jël gaal gi. mais loolu ni ñuy wax il faudrait que ñu commencer par fenn mbir bu nekk dafa am. commencement mais nga xam nga moo nekk nit koo xamante ni ñun amuñu patience. parce que mhm. yow li ngay wax nii c'est à long terme. c'est-à-dire dafay nécessiter des années et des années de travail. li ma bëgg wax mooy aujourd'hui tey soo yorul nguur yow nekkoo directeur général nekkoo ci nguur gi liggéeyu fenn mais euh, nga mën a fexe di créer emploi di jël ay jeunes di leen former. kooku suñ la joxee nguur dinga nga mën a def lu ëpp loolu parce que xam nga naka fan na ñuy jaar pour mën a def loolu xam nga fan na ñuy jaar pour mën a wut ay financement pour mën a créer des petites industries parce que soxlawul ñu jékki-jékki di tëb di dem sur des grandes industries mais on peut mettre en place des petites industries yoo xam ni daal ñu mën a jël ay xale ay xale organiser leen par exemple ci mbay bi par loolu duñ koy def am nañu tool xombal boo xam ne duñ ciy jël ay gone di di liggéey ak ñoom di def maraîchage. ñu siy am ñoom seen di ñu siy gagné dara. donc il faudrait que ñu jéem a xool nu ñuy modéliser loolu sur le plan euh, national et puis aussi suñ ko deful on aura toujours des problèmes parce que les gens ils viendront toujours. Euh, vers Dakar parce que ils vont faire la virée vers Dakar mu am problème ñu am tey embouteillage nga jógee sa kër 6 heures et demi du matin yegg si fii à à 9 heures euh, c'est infernal c'est pas possible on peut pas continuer à vivre dans ces conditions il mu ñu éclairer ko xool ni ñuy décentraliser les choses dans les régions créer des petites euh, industries par exemple les ZES ils l'ont expérimenté à Diamniadio euh, à Sandiara et tout ça ça marche c'est des modèles comme ça qu'il faudrait mettre en place pour ñu mën a développer réew bon